si kaa leen La police nationale a encore le plaisir de partager avec vous sur le Grand Magal de Touba. Dans le cadre de la sécurisation du Grand Magal de Touba, édition 2023, la police nationale a mis en place un dispositif pour une prise en charge optimale de l'événement. À cet effet, des opérations pré-Magal ont été déroulées et un plan de sécurisation pour le Grand Magal mis en place. En ce qui concerne les opérations pré-Magal, dont le but est de prévenir les velléités de commission des faits infractionnels, elles ont démarré depuis le 4 août 2023. Il s'agit d'opérations sectorielles organisées par le commissariat spécial de Touba secondaire à savoir Ndambatou, Guimint, poste de Guimint, le commissariat urbain de Mbaké, les renforts du groupement mobile d'intervention et de la Docourtis, mais également l'opération mixte police-gendarmerie. Et ces opérations ont donné les résultats suivants. 197 personnes, dont 381 déférés au parquet compétent. 299 pour vol simple, vol aggravé, notamment avec une récurrence des cas de vol de bétail. 69 pour infractions liées aux stupéfiants. 13 bandes criminelles ont été démantelées. 416 personnes ont été appréhendées pour vérification d'identité. Concernant la quantité de drogue saisie, Il s'agit de 14 de chanvre indien et 20 pilules d'ecstasy. Au titre de la sécurité routière, 3880 pièces ont été saisies, 364 véhicules mis en fourrière, 292 motos immobilisées, 71 véhicules hippomobiles immobilisés. Sur les accidents de la circulation routière, 89 accidents matériels ont été constatés, 42 accidents corporels et 3 accidents mortels. Relativement au dispositif du Grand Magal, un effectif de 4106 des moyens logistiques conséquents sont engagés pour couvrir les communes de Touba, Mbaké, Durbel et Bambay. où on, it on avait déployé 3754 personnels, on note une montée en puissance, soit un de 352 éléments de des personnels de la sécurité, commissariat spécial de Touba et ses le commissariat urbain de Mbaké, le commissariat central de Durbel, les autres renforts de la, de la sécurité publique, notamment de la compagnie de circulation. renfort du groupement mobile d'intervention de la direction de l'Office central de répression du trafic illicite des stupéfiants, de la direction de la surveillance du territoire, des unités spéciales et de la brigade. Ce dispositif physique s'ajoute un dispositif technique avec des drones et embarqués. conformément au plan de circulation élaboré par l'autorité administrative en exécution un dispositif statique et mobile appuyé par la surveillance technique s'attelle à la fluidité du trafic sur toutes les voies menant vers Touba et à l'intérieur de la ville sainte. Pour les villes de Touba et Mbaké, 13 secteurs et 9 postes de police avancés ont été érigés. Les postes de police seront armés en enquêteurs et en moyens logistiques conséquents et placés à des endroits stratégiques, notamment criminogènes de la ville. Dans la ville de Touba, par exemple, nous avons, euh, des postes avancés au niveau de postes contrôle, à Mbaria, à la station MK d'Aroukoudos, à la route de Guédé, à la route d'Aroumousti, Grande Mosquée, Garba, Kër Serigne Abdullah Mbaké, entrée Mbaké. Et dans la ville de Mbaké, nous avons deux postes avancés à Sanchu Darou Salam et à Djamugan. Pour les missions de la police nationale, il s'agit de sécuriser les personnes et les biens, les populations de la ville de Touba, les pèlerins. Il s'agit de lutter contre la délinquance et la grande criminalité, lutte contre les cambriolages, les vols avec violence. assurer la fluidité du trafic routier par une régulation de la circulation, sécuriser les lieux de culte, les mosquées, les mausolées, les domiciles de dignitaires religieux, des points les points d'affluence, les marchés, les grandes surfaces, également les gares ferroviaires. Pour cette année, le train a été mis dans le dispositif et la police nationale a mis un dispositif conséquent pour sécuriser la circulation ferroviaire. Il s'agit de rechercher et d'interpeller les malfaiteurs et délinquants auteurs d'infractions, maintenir l'ordre public, prévenir toutes sortes de menaces asymétriques. La police nationale souhaite à tous un bon magal et appelle la population la collaboration par le signalement de tout fait répréhensible aux services de police les plus proches, notamment les postes de police avancés, ou par le numéro 17. Je vous remercie de votre attention. salaamaaleykum suñu mbokku journaliste yi ñoo ngi leen di sant ci seen teewaay di leen euh, remercier ci xaar bi aussi ci wàllum saytu karange màggal grand màggal de Touba édition 2023 bi police nationale teg na ay jumtuwaay yoo xam ni mën nañ ko tëg jàpp ci ñaari pàcc bu ci njëkk mooy li ñuy wax les opérations pré-màggal maanaam dispositif boo xam dañ ko tegoon pour anticiper ci képp koo xam ni da nga jóg pour def ñaawteef alaa màggal gi di balaa màggal gi di commencé beneen bi mooy li nga xam ni moom lañu ñu ci ci màggal gi ci boppam bu dee ci wàllu opération pré màggal yi nga xam ni li ko tax a jóg comme ni ma ko waxee mooy xeex ñi nga xam ni euh, li leen tax a jóg ñoom seen bopp mooy ñëw pour jafe indil pèlerins yi ay jafe loolu inter police nationale ànd ceeg commissariat yi nekk fii ci Touba jóge woon spécial bu Mbacké commissariat Diourbel central bu Diourbel Bambey ak renfort yu jóge groupement mobile d'intervention ak waa gis ñiy xelum Sinébar ñoom ñëpp dañu àndoon di def ay opération la màggal gi di commencé weer avant màggal gi di commencé donc ci loolu jàpp nañu lu mat juróom téeméer ak juróom fukk ak juróom-ñaar ci ay nit ñetti téeméer ak juróom-ñetti fukk ak benn ñoom la ñu jébbal yoon ñoo xam ni liñ leen di toppee mooy ñaar téeméer ci ñoom ak juróom-ñeent fukk ak juróom-ñeent lu jëm ci wàllum sàcc jël alalu jaamu boole ci ñenn ñi boole ci ak ngànnaay juróom benn fukk ak juróom fukki ban yoo xam ni jàpp nañ leen ñeenti téeméer ak fukk ak juróom benn yoo xam ni identité bi ñu paree ñu wax leen jàpp teg drogue yi dem dikk bi sécurité routière ñetti junni ak juróom-ñetti fukk ñetti junni ak juróomi tee juróom-ñetti téeméer ak juróom-ñetti fukk pièces lañu ñu saisir ñetti téeméer ak oto nissan juróom ñett juróom-ñaar fukk charrette ci wàllu accident yi ñu ngi enregistré juróom-ñetti fukki accident ak juróom-ñeent yoo xam ne accident matériel la maanaam ay oto yu daje wala leen yoo xam dégâts matériel rek la ñeent fukk ak ñaar accident corporel ay nit yu ci am gaañu gaañu ak ñetti accident mortel ñetti nit ñoo xam ne dañ ci ñàkk seen bakkan ci wàllum dispositif bi ñu teg en place pour màggal gi ci boppam police nationale mi ngi engagé ñeenti junni ak téeméer ñeenti junni ak téeméer par rapport ak li woon daaw yokku na lu mat juróom fukk ak effectif boobu mi ngi composé li ko composé mooy waa commissariat bu Touba ak ay secondaire am waa commissariat bu Diourbel commissariat Mbacké renfort GMI renfort direction OCRTIS waa direction de la surveillance du territoire ak unité spéciale yi ak brigade prévôtale ci loolu ñoo ngi ci yokk également un dispositif boo xam ne surveillance euh, électronique la ak euh, ay drone ay caméra de surveillance pour gën a yombal liggéey bi wàllum plan de circulation bi maanaam dem beeg dikk bi préfet bu Mbacké dafa jël benn plan de circulation boo xam ne commencé nañ ko appliquer tey bi minuit jotee. boobu suñ ñoo ngi sur fexe ñu appliquer ko pour nit ñi mën a jafe-jafe. pour Touba ak Mbacké ñoo ngi fa def ñoo ngi ko ñoo ngi ko dagg en treize secteur ci treize secteurs yooyu am na juróom-ñeenti poste de police avancé poste de police avancé yi mooy permettre nit ñi bu ñu amee jafe-jafe quelque part ñu bañ a dox lu sore pour dem commissariat donc dañuy jël police jegeel leen ko moo tax ñu def ay poste de police avancé poste de police yooyu ñu ngi nekk poste contrôle mbaar ya am na benn station MK bu Daaru Xuddoos route de Guédé route de Darou Moufti grande mosquée gare ba kër sëriñ ab Lahad Mbacké entrée Mbacké yeneen ñaari post police yi nga xam ne ñu ngi nekk Mbacké ñu ngi nekk Santhiou Darou Salam ak Diamaguène mission police nationale nag lenn la mooy saytu nit ñi ak seen karaange xeex lépp loo xam ni wàllu ñaawteef la assurer dem ak dikk bu yomb pour pèlerin yi teg dispositif fépp foo xam ne nit ñi dañ fay dajaloo pour assurer seen sécurité maanaam lu mel na gaar gaar ferroviaire yi xam ne ni ren dañ ci boole train bi muy convoyer population yi depuis Thiès donc gaar ferroviaire yi teg nañ fa dispositif yu am solo euh, mosquée yi euh, jàkka yi jumaa yi yooyu yëpp teg nañ fa dispositif boo xam ne mu ngi saytu dispositif bi ngeen xam ni moom ngeen gis ñu sol en am na ay yeneen éléments yu nekk ci biir yoo xam ne surveillance électronique bi ak drone yeeg ak donc police ñu leen di remercier ñaan màggalu jàmm di le di woo population ku ci am loo xam ne gis nga ko te dalul sa xel mën nga woo ci 17 wala nga dem ci commissariat wala poste de police wala poste de police avancé bu la gën a jege pour def déclaration bu boobaa ñun li ci war daañ ko def incha allah pour que ñëpp màggal ci jaamu ñibbiwaat ci jaamu bañ a am benn jafe-jafe jërë ngeen